Budayo debonga toka jofa yo fanyin bugin ya nyan lana fap fo chalel kana yai boy. Budayo debonga toka jofa yo fanyin bugin yai nyan lana bai boy chalel kana yai boy. Budayo debonga toka jofa yo fanyin bugin yai nyan lana fap fo chalel kana yai boy. מחורוב גים כפאר, רוגו ילוכה, בונר נסו חודר, סמא מוטלא אינא אדני. גים מחורוב גים כפאר, רוגו ילוכה, בונר נסו חודר, סמא מוטלא אינא אדני. גים מחורוב גים כפאר, רוגו ילוכה, בונר נסו חודר, סמא מוטלא אינא אדני. e ke megogo ke mkefae iroko ya loga rwa desare goduae modo garain lo jomberongino baldame daktages jegedidei urwa desaren goduae modo garain loi jomberongino baldame daktages jegedidei roi des arènes xodduwaye mondu xarañ loo jombe rongi no baal dami daktaxiis jege di dey roi des arènes xodduwaye mondu xarañ loo jombe rongi no baal dami daktaxiis jege di dey conke mbetanga arène ne xinay ke lake yonga laya pelkano ngel na cosaan na i ñowaye Ichom kembetanga arene gina ike ke yungala pelkanongel na chosana inyoae. Ichom kembetanga arene gina ike ke yungala pelkanongel na chosana Ichom kembetanga arene gina ike ke yungala sanna chosana